Bonjour, et je suis très contente d'être ici, je suis très contente de voir les travaux que vous avez faits. Et mm, je me rappelle l'année dernière que j'ai visité les postes de santé et les conditions, c'est pas très bon. Et il semble un nouveau centre et poste de santé. Et mm, je crois que, que toute l'équipe, les amis de Thiès ont travaillé très bien avec euh, la communauté, avec les techniciens. Et j'espère qu'il fonctionnera bien, que nous pouvons finir l'équipement et, et, après faire la formation, la sensibilisation des les, des les femmes pour venir faire l'accouchement ici. Et ça, c'est important. vous avez vu sur place Comment vous avez trouvé l'état d'avancement des travaux Très beau, très beau. Il y a ce qui finit. C'est bon C'est bon. non conseil départemental moo ñëwoon donc ànd ak euh, suñu partenaire euh, région Toscane docteur Caldes jite ko mais également ministre ambassade Italie bu Séné bu nekk Dakar ne aussi ndaw de même que waa ministère de la femme nga xam ne madame Diop moo leen représenté donc pour ñëw xool ñu àndandoo ak conseillers yeeg membre bureau beeg ak le médecin chef de Thiès dem xool avancement travaux yi nga xam ni tàmbaliwoon nañ ko Thiès te partenaires italiens yi financé. biñ njëkk biñ njëkk mooy hôpital régional nga xam ne maternité biñ fa defar tabax ko mën naa ni clinique la sax ci biir euh, hôpital régional muy loo xam liggéey boo xam ni ñëpp rafetlu nañ ko defe naa ku fa dem gis qualité liggéey bi nga xam ne fii liggéey bu set lañ fi def mais également dem nañu pédiatrie bi ñu demee pédiatrie aussi gis nañu liggéey bi nga xam ni ñu ngi koy def ci xale yi mais également waa coopération italienne prévoir waa Toscane dañu prévoir équiper benn salle boo xam ne xale yi dañu fay fo. xale yi suñ ñëwee pour consultation ñu def ay équipement yoo xam dinañ ko mën a def ay jeux pour xale yi di ubbi seen xel mais également métit bi leen di daal ñu koy mën a fàtte boobu aussi ñu ngi ciy liggéey mais aussi euh, ci Sam Ndiaye gis nga liggéey bi rafet bi nga xam ne def nañ ko fi macha allah muy mun naa ne tabax sax maternité bu bees donc moom lañ constaté également Cité Lamine maternité yi gis nañ liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci ndax liggéey bi ñuy def dafa dugg ci projet boo xam ne ñun moom lañ tuddee projet de lutte contre la mortalité maternelle infantile mooy bëggatuñu benn jigéen di joxe dund di ñàkk dund di ñàkk bakkanam donc bëggatuñu kenn di mucc vraiment di ci des loolu la tey gis nañu ni euh, liggéey bi ñu def dina tax aussi bien ci Cité Lamy nga xam ni quartier bu mag la que fii di Cheikh Sam Ndiaye nga xam ne dafa polariser village yu bëri ci biir Fandène dina mën a tax jigéen ñi suñuy mucc am bërëb bu ñu koy defee ci jàmm ci dal mais également ci sutura ak ci ci seen wér-gu-yaram te loolu defe naa ni partenaires yi nga xam ni ñoom ñoo ñu ko ja ñoo ci jàppale gis ne wax nañu seen kontaan ci liggéey bu set bi nga xam ni ak bu rafet bi nga xam ni def nañ ko fi. loolu lépp ñu ciy sant suñu borom di leen wax ni liggéey bi yemul fii ndax war nañ indi équipement yi wax nañu médecin chef bi mu coordonné. pour li ñu soxla ci équipement ñu bind ko ñu jënd ko rapidement pour que daal fii ak fukki fan ak juróom ci mois de juillet ñu mën a def inauguration bi ak ñoom mais daal équipement yëpp yemb donc ñoom suñu amee jot ñëw ñu defandoo ko ensemble ak ambassade Italie ñun ñëpp ñu ñëw inauguré ko defe naa ni mooy mooy suñu yéene mais aussi am na ay projets yu bees ñoo xam ne bëgg nañ leen ko joxaat ndax at bu ne li ñu waxoon mooy xalaat nañu ni mën nañ mobiliser ci ñoom lu mot téeméeri million donc kon dañuy ngoon am nañ réunion boo xam ne dañ leen di wan projet yu bees yi ñu am projets yu bees yi nag mooy euh, par exemple ci Pout euh, médecin chef bi dafa bëgg def salle de au lieu ñuy jógee ndax Pout xam nga dafa polariser Pout Kër Moussa Jandeer euh, ak Kayar moo tax centre Pout bi dañ ciy def ay efforts yu am solo suñu bon mooy projet 62 millions la euh, beneen bi mooy projet bu médecin bu cees am pour defar benn centre de traitement du diabète et de l'hypertension biir Thiès boobu docteur Moustapha Diop moo ko gàddu boobu aussi dinañ ko présenté ngoon beneen bi mooy côté Xombol xam nga centre Xombol aussi day polariser Xombol Toubatul Ndiéyeen Sirax Ngunjaan ak Thiénaba donc loolu soo fekkante ni am na centre boobu dañ ko war aussi jox gëdd moom it am na projet am solo yoo xam ne présenté na ko dafa bëgg ñu réhabiliter poste de santé bu njaxu bu tuubaatul mais également ci biir xombal am na centre boo xam ne day day jàppale xale yi nga xam ne dañu xaw a néew doole mooy renforcement nutrition xale yi boobu aussi prévoir nañ ci projet loolu lépp ngoon lañ koy waxtaan ak coopération suñ partenaires italien yi waa ambassade Italie pour ñu xool ñoom it nan ciy dugal seen loxo pour dire rek ñun suñu yéene. yàlla ñu ciy suturaal ñu ngi ciy ndànk-ndànk mais mooy am jox Cees Ceesuwaay yi plateau médical boo xam ni lu ñu bëgg a faju dinañ ko fi faju te dinañ ko faju ci ci ci mucc mucc ayib en tout cas mooy yéene ñu am ci Cees ñu ngi koy ñu ngi ciy góorgóorlu yàlla ngi dogal suñu partenaires yi ñu ngi ciy jàppale te waa Italie ñoo ci jiitu te loolu defe naa ni day dugg rek ci yéene bi ñu yàgg am mooy jàpp taxaw Cees waaye ci seen wérgu-yaram nga xam ni Cees moom kenn du fi amati problème wérgu-yaram di jéggi feneen di ko faj mais danga koy faj ci biir Cees waaw xam nga ñun ñoo taxawoon wax ne dañoo soxla lu mel nii ci Sam Ndiaye ak ci Cité ñun ñoo ko tëggoon ànd ko conseil départemental ak waa coopération Italie ba dëgg yàlla ñu jàppale ñu ba tey jii mu sotti yaakaar naa ku fi ñëw démb ñëw fi tey dafa mel ni yàlla ak yàlli kon ñu mën nañu lu may sant yàlla mais gërëm bu baax nag waa conseil départemental le président mi ngi taxaw pour sa disponibilité son engagement mais gërëm également docteur Caldes ak toute la coopération italienne di sant yàlla di wax ne nag lii dina nekk li nga xam ni lu am njariñ lay doon ndax ku ne xam na ni Sam Ndiaye soxla war na ko Cetala mi soxla na ko xam tout cas dina nekk lu jàppale bu baax a baax askan wi ci seen wàll seen wàllu wér-gu-yaram di wax tamit nii tabax nañu équipement bi am na lu fi nekk am na lu des président sànq nee na ma. expression des besoins maanaam day xaar rek liste bi li ñuy soxla ñu jox ko ko mu ñëw jàppale ñu ci kon ñun moom def na li mu war a def li ci des nag mooy ñun ñoo war a góorgóorlu ñun ñoo war a jublu ci liggéey bi mais surtout ñun ñoo war a toppatoo nag bâtiment bi ak matériel bi ndax nag ëllëg dañu fiy ñëwaat te vraiment bu ñu fiy ñëwaatee bëgg nañ gis ay bâtiment ak ay équipement yu mucc ayib pour terminer rek di wax ni tamit am nañu beneen projet bu li weesoo boo xam ni day faj tension ak diabète ndax fii ci Sénégal xam nañ ne feebar yooyu moo ñu gën a sonal tey ci ngoon dinañ présenter projet bi te dinañ am yaakaar ni projet boobu partenaires yi dinañ ci jàpp ndax yaakaar naa dina nekk loo xam ne en tout cas suñ ko defee dina dimbali waa Thiès ci seen wàllu wér-gu-yaram. personnel communautaire buy euh, continuer di faj askan wi état bi mi ngi wax ne mi ngi def ay recrutement euh, lan moo ci seen taxawaay ci côté boobu. waaw ministère de la santé wax nañu ak ñoom jaarale ko ci région médical pour ñu jàppale ñu dañu yàgg a jàppale xëy na nag. état bi mënul def lépp waaye nag lii moom dafa nekk lu ñu ñor ndax ku ne xam ne ni tamit wax dëgg yàlla suñ sañoon euh, suñ personnel bi fi nekk rawatina sage femme bi ñu dugal ko ci contrat wala boog ñu dugal ko ci recrutement fonction publique mais am nañ ci yaakaar bu baax ndax xam nañ suñ kilifa yi ñu ngi ñuy déglu te it bàyyi nañ xel bu baax Thiès. waaw jërëjëf je pense que mooy li ma ko wax tout à l'heure donc ñi ngi gërëm suñu partenaires yi italiens yi ñi ngi gërëm aussi Euh, mu nekk conseil départemental léegi parce que ñoom ñoo ñu permettre actuellement ñoo ñoom ay matériel matériel yoo xamante ni nii bon du ma ni amul fenn ci Sénégal mais boo doon wër bu bëri foo gis demal salle d'accouchement gis ngeen ko femme bi nekk en travail am na des éléments de paramétrage maternel lu ñu tuddee cardiogramme maternel am na aussi le monitoring ce qui fait que ñun dañuy am ah de façon instantanée dañuy xam appréciation yaay ji yan condition la nekk et aussi doom yan condition la nekk donc loolu je pense que lu baax la ci ñun parce que day yombal suñu liggéey et aussi dinañu permettre ñu xeex li nga xamante ni moom ñoo fi bàyyi mooy xeex pour que jigéen ñi mucc bañ a perdre seen bakkan donc yaakaar naa ne loolu lu baax la et ñun aussi dinañ ko jël delloo ko population bi pour que bénéfice bi nekk bénéfice waa Thiès gépp waa Sénégal gépp waaw maa ngi koy wax léegi nee maternité bi gynéco la obstétrique aspect gynéco bi mooy li ma wax léegi mooy matériel yi ñuy jox matériel yooyu résultat yi gis nañ ko parce que waxuma ko mais on a une maternité fait cinq mille deux cent accouchements cette année on a fait cinq mille deux cent accouchements mille deux cent césariennes euh, cent accouchements annuels mille cinq cent césariennes un taux de césarienne de vingt quatre pour cent donc loolu mooy activité obstétricale Maintenant, en dehors de cette activité, nous avons développé la chirurgie gynécologique, notamment la chirurgie des cancers. Donc, une activité là nous développer. C'est rare de voir une maternité avec volume d'activité obstétricale am possibilité di def la chirurgie des cancers et la chirurgie gynécologique globalement. Qui nit ñun actuellement, nit am une unité de cancer gynécologie à l'hôpital régional de Thiès. unité bi fii la nekk malade yi dañuy def seen chimiothérapie fii à Thiès bu leen waree opérer dañ leen di opérer fii à Thiès. foofu laa doon ñaan ñeneen ñoo xam te mën nañ ci jàpp pour que ñu ñëw jàppale suñu unité bi ñu gën ko développer compétence yi ñu ngi fii am nañ ay infirmières chimiothérapeutes je ma dem madame euh, Samb qui est là qui nous appuie donc maa ngi ñaan partenaires yi aussi waaye Thiès ku mën a doon nga ñëw xam ni ñun ñëpp ñoo ko ba ñu jàpp ci unité bi ñu def ci seen moyen pour que ñu gën ko développer pour que population thiessoise bénéficier et population sénégalaise bi yëpp bénéficier ko sànq ci fanweeri nit yi ngeen waaw. waaw lay préciser naa léegi eh, gis ngeen ko yéen aussi ah du montage du dara c'est la réalité la réalité mooy ñun dañu bëri malade dañu bëri malade ñuy recevoir comme centre de référence la donc war nañu xool yan mooy la def pour ñu gën a am rapidité efficacité loolu moo tax am nañ deux salles d'intervention bu ñu installé patient d'un côté le temps que ñuy pare le chirurgien mën na déplacer avec un autre anesthésiste ñu dem def de l'autre côté ce qui fait qu'en un temps record 30 minutes on a la force de faire deux césariennes vraiment ñu ngi remercier suñu personnel personnel maternité bi parce que loolu bu amee du gynéco bi du kenn mais ek bi yëpp la ñoom ñëpp ñoo soudé wu formé ñu ngi remercier aussi administration parce que administration gis na ni affaire bi sete daf ñu yombal suñu liggéey ils sont toujours à l'écoute lu ñu wax dañu naan ay wax bo am na ñu xaw a sama mbokku yu xaw li naan léeg-léeg administration. Mm. matin la àndal en réalité ànduñoo ak ñun mais dañu bokk xeex bi loolu la donc ñuy remercier administration di remercier képp ku jàpp ci lutte contre la mortalité maternelle à l'hôpital régional de Thiès. El Hadji Gaye may président comité de santé bi poste de santé saam Ndiaye bon ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa yi dëkk bi mën naa ni ak turu comité bi yëpp. Euh, ak turu sunu kilifa yi fi teew di docteur Diop ak monsieur Yankuba ba jatara que ñoo ñooy sunuy kilifa. mu liggéey bi. liggéey bi daal ñoo ngi sant yàlla ah lu nu yàkkamti woon la bi mu egsee ci ñun itam am na lu mu def ci ñun ndax euh, comme ni ko kilifa yi waxee li paase am na beneen xar kanam boo nga xamante ni feeñ na ah li fi ñëw nag. dinañ ko taatan ci sunu kemtalaayu kàttan jéem ko tenir ci ñaan yàlla mu yokk ndax olof nee na daanu dajul suuf mais am nañu yeneen ay lu ñu gën a yu ñu soxla yu ci war a dolliku xam naa yooyu ñoo ngi koy ñaan yàlla jàppandal leen ko ba nu mën nu koo indil lu mel ni euh, ki ay équipement yooyu ak lu lu jëm ci wàllu luy luy tenir euh, euh, euh, poste bi ndax fii li mu boot ci dëkk dafa bari waaye ambulance kooku moom eh, waxoon nañ koy yaakaar naa ne ci li paase sax yàgg nañ koy tawat parce que fii ku fi am cas boo nga xamante instant la ci guddi gi pour lu ko évacuer yóbbu ko problème lay doon waa yoon bi rataxul amut mën naa ne goudron amut Eh, même yoonu suuf bi problème ngay am booy boo fiy jaar dafa bari suuf wax ci dolli sareet moo fi nekk ca bon jigéen bu dee mucc tollu benn état bi wala boog benn malaat bi mu am nga dugal ko ci sareet bala nga koy yóbbu conséquence yu ne mën na ci am quoi loolu ñoo ngi koy gën a jàmbat kilifa yi lu nu ci mën a dimbali sa fii mun naa ni du Fandène dong moo fi ñëw ñi muy accueillir dafa bari boo demoon tey jii euh, maanaam li féetee côté Ceneba ñoom dañuy ñëw fii waaw dañuy ñëw saam même euh, lam-lam ay Tiwaawoon yooyu côté yooyu yëpp dañuy ñëw fii ca kon bu nu bu fi dee ñëw day laaj lu mel nii am ba ñoom ñu sawar di fi ñëw ba dootuñu ko jëggaani feneen parce que fii moo gën a jege sa fii daal dafa dafa nekk centre daal bu doon lii dama la naa centre ville la dañ ko voilà li ko li ko wër dafa bari li muy taatani dafa bari kon kon loolu ñoo ngi ñaan rek euh, lépp daal ñu ñu gën koo yombalal ñu ni sant nag euh, carrément sunu kilifa yi jàpp nañ ci bu baax parce que feccum liir bu neexee nday jaate ca mbagg ya ñoom lu bari mënoon na ñëw ci ñoom ñu war ko mun a indi fii ñu rejeté ko yóbbu ko faneen mais dana choisir fii xam ni fii aaja woon nañ ko itte woon nañ ko ñu ñëw indi ko fi. courant bi mel na tàkkagul lu ngeen wax également. waaw loolu mu gaaw rek. parce que mooy conséquences yi am ca ñu war ko mën a taxaw di ko atteindre loolu amagul courant bi lu mu gën a gaaw ñëw bon matandike bi moom buy ñëwee rek day daal di mën a fonctionner et puis euh, euh, logement sage-femme yi moom itam aussi moo ci def ñoo ngi ci def ay jéego ah yàlla mun na def dina dina mun a pare. bu paree sage-femme yi mun fee ñëw di fa fanaan parce que cas bu amee guddi ñu mën a fekk ñoom ñoo ngi fi ak équipement bi war leen a mën a taxaw daal ba mu ba mu ba mu jàll. amu leen problème ndox mu ndox moom. ndoxum naan leen problème bi. ndoxu naan moom mun naa ne ndox moom dugg si na. xanaa travaux yi moo dese tuuti parce que comme robinet euh, yi ci public bi pour ñi fi war a mën a ñëw. suñ dee wàllu dañuy jàpp dañuy julleeg yooyu ñu war a mën a kii. moo fi nekk moo ngi nii si waaw ci biir kër yi moom am na yu des xam naa ni moom moom itam bu ñëwee ñoo ngi koy taatan waaw euh, am na itim euh, comme gàmmu bi bi ñu fi wax euh, bu soobee yàlla samedi la courant bi lu mu gën a gaaw ñëw ba nu mën koo animer ndax it nag comme li ma wax rek feccum liir bu neexee nday jaay tey ci mbagg ya yàllaa aye mais yonent bi aye kon ñun ñuy njaboot gi dañ ci war a mën a jàpp